ca tàllalum daanaka bokk na ci ñett ponk yi ñuy waxtaanee tey jëlee muy nag euh, maanaam euh, gouvernement bi précision yi mu indi ci li nga xam moom moo jëm ci euh, ñi faatu ci mbëkk bi wala ci la nga xam ne moom mooy amoon ci chavirement bi amoon kon ca Wakam guddik dibeer jàpp altine bi Mansour ni dem démb ñu ngi doon xaar gouvernement bi indi ay leeral ci li ñu mel indi na ay leeral ci kàddu Abdou Karim Fofana fukk ak juróom benn doomu aadama ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan ci lim ba nga xamante woon nañ ko fukk ak juróom-ñett wax leen arrangé mais indi wu gouvernement bi leeralul gaal gi li ci yéegoon nee nañu mat na 60 personne selon benn benn rescapé yi ci am ñu gis ci fukki koor ak juróom benn ñaar wala ñetti ñoo ci rescapé ñi disparaît anamu disparaître ci géej amul bàyyi disparition ci géej amul soit dis gaal bi mooy disparaître ñu koy def ay recherche mais nit ku taanu daanu nit ku disparaître ci ndox amul géej kenn du ci dox dee nañ il faut nous oser des précision bobo disparition qui géej dee nous nous nos responsabilités responsabilité c'est ça la réalité daf may fàttali événement bi Amon Mac 2015 nous mel nii moo indi c'est-à-dire kullu nafsin zaiqatul maut nit ku nekk dafay dee de la tadri nafsin bi ay adin tamut kenn ben bakken xamul ban suuf lay deewee hmm. kenn xamul fan ngay deewee donc faut ñu oser wax li xew gal gis nga même rescapés yi nga xam dañ naan for nañu leen ay daxlaak nangam nangam seen gal dafa réer ñu for leen mais même yooyu yow boo amee kenn ku ci bokk ci rescapé yi nga échanger ak ñoom dañu lay wax ay benn benn yuy dee ñu leen di sànni ci géej gi mais ñooñu duñu ay nit ñooñu duñu leen comptabiliser caaxaan baaxul li dee du fukk ak juróom benn parce que gal gi yebul woon vingt personnes te boo seetee ñaari rescapé la am wala ñett mom lañu gis ak ak idées il dina départ Espagne personnes. kan nous ko gis ci aduna ci yeen même bu même bu personnes. nañu wax nit réalité bi. minimum dina 60 personnes. donc nous oser def rechercher. do nañu continuer rechercher. climat bi neexul ñu mais nous avons taxaw ci le Sénégal gal départ euh, chargé rek fii Wakam nga taxaw naan len 16 morts mais anañ ci dess mais amna ay xibaar yo xamantene ne jot nañ ko selon ñun ñi nga xamantene peut-être demone nañu sur les lieux euh, def defi constat reportage que ne euh, ñenn ci ñoo xamantene nekkon nañu fi ci fajar bi affaire bi di xew amna ñu ñu gis ñuy sol seeni sac di daw est-ce que nekkul peut-être dañu nek ño xamantene dañu mëna mën fay parce que boko ko euh, fi gal gaal gi mbëkk ci xéer yi mu mbëkk ak fi manam tefes bi nek sori wul tellement donc certainement amna ño xamantene amna ñu capacité pour fay distance boobu pour génn pour daw. est-ce que aussi. gal gu nga gis gal gu nga gis Alamine. Hmm. gaal gu bees la wala det gal gi nga gis gi nga gis mu cha mu chaviré foofu gu bees la wala det yo xam nga ni gal du gal gu bees. Hmm. donc ci doley nguur.

Les immatriculer auto Mansour. c'est ça dañ ko wara immatriculer. vous bu defar. pour Naples, la pour tourisme la pour euh, doxantu la ak lu don ko comme immatriculer wala sax scooter wala mm-hmm. euh, ñu euh, deux roues Mansour. tchak mm-hmm ci enquête bi ñu def pour teg fofu foofu gaal yi départ bi ay wax la euh, ñu immatriculé les gali lolu moy li jadu hmm. mais li wér mur moy lolu politique bi ci ñom lay départ ñom lay neex ñom ñokay def comprendre nga. Hmm. dañu précipité won biñu annoncer 300 trois cent personnes. Oh, yu disparaître di tontu. <laughs> xam nga boobu dañu annoncé woon personnes ci ay gaal. 300 300 ci ñetti gal mais gisunu len hmm. lolu disparition la parce que kenn gisul des yi ñu daal di précipité des di mimes miim jox ñu le gal, bu côté Dakhla am ci ñu faatu am ci euh, ñu ay certes hmm. mais si vous antenne mime loolu ba vous avez loolu précision ci ñu faatu si vous avez chiffre bi un chiffre bi village du migrant joxe fait un te Tu as besoin leen tëngeej nga xam dañu la

traverser ce voyage bu mu wóoluwul ci arrivé itam responsabilité euh, politique gouvernement bu échec ci politique d'emploi des jeunes tax donc responsabilité partagée euh, imaginez ngi 8 ans euh, ci Sénégal Sénégal chaque année ñaata xalé 2 tay nañu comptabiliser petites et moyennes entreprises ñi koy doxal majorité bi ñepp passe wuñu seen deux ci jàng te tey ay chef d'entreprise lañu wala ñoom kon seen formation yi ñuy wax 3FPT xanaa kon ñi qualifié te ñu ni formation d'initiation dañ lay fekk nga nekk ci sa métier ba noppi ñu fekk la ca formé la ca xanaa kon gëmuñu que ñuy formé waat ni moom ba muy bàyyi jàng CM2 la am. tey ñaata nit ñoo dem ba ci ba ci biir ñu ni mënatuñu continuer jàng parce que dañuy xëy seen papa di am problème dépense loolu mooy réalité Sénégal Pape Malick Ndour fii la xale bu am 15 ans xëy dem di defi manœuvre wala muy xëy di dem tool di ànd ak ku nekk Sénégal bëgg a boobu dafa mel ni yaroo fi gars yi nag nguur da xamante beneen réalité la ñuy dund bokkut ak waa Sénégal fi nit ñuy dem waxee wuñu nit ñuy waxe fàtte nañu sax ñoom souvent seen ay origine mais tay ñu génne ñu ëpp doolé ci petites et moyennes entreprises wala sax ci ponkal yi nga xam ñu ëpp doolé am ñu deful école ñaat nit ñoo CM2 mais formation la formation professionnelle tay lool moy importance université bi taxawal Touba lay sa qualification ci métier nga nekk ci ñu xam yoo kenn mënu cee def lu la raw ñu fexe nga am ci diplôme pour mën a compétir ëllëg tey boo demee machine yi nga ji Chine muy dagg ngooñ dagg dugub tey boo Touba ay tëgg ñoo la koy defal kooku mënu wax ni qualifié wul kooku kooku sax def école nga ni nga ni nga benn bu am 18 ans dugg ci géej da nga ko ñaawlu parce que xale loolu mooy réalité Sénégal bu ko fàttee ñu fàttali ko et puis programme enseignement au Sénégal bi nga xamante 18 ans ngay am soog am bac 19 ans 19 ans soog am bac bàyyi loolu xale mun na ci daggum jàngam bu defi leneen. boo ni laarul ci boo ni sax. <laughs> damay damay yokk dara da wax. lu am solo ci surtout ministre de la jeunesse. Mhm. Eh, te fu mu nekk nii cas bii nii wala situation bii ñuy dundu jeunesse yi ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a exposé. ñoom la. Euh, le ministre de la jeunesse comme ni ko Mansour waxee man dama yaakaar ne. man xaw ma man daal comprendre ma daal vraiment comprendre ma. parce que déjà waaw non seulement. mais li ma jaaxal xam nga yaa ngi xam nga yaa ngi ma xam nga Mansour mi ngi naan xam nga Mansour mi ngi est est fii la juddoo. gën gi neew gii la juddoo. gin gi neew fii la dëkk. gin gi neew waaw fa la bokk. xam nga koo xamante ne nii yow xam nga xam na réalité yi. xam na bu baax li li li am mais malheureusement nous avons un ministre de la jeunesse boo xamante ne nii. non seulement il, se, il, il communique extrêmement mal, mal. Mm-hmm. mais aucune action boo xamante ne nii jeunesse bi. aucune action et pourtant avant de nekk ministre. Mm-hmm. mooy bien. yaakaar il communiquait bien. mooy dire yaakaar ci communication de. Hein? mooy seen yaakaar nag ci communication. <laughs> il communique bien il communique bien sax. nekkagul il communique bien mais xam nga dafa am lu ñuy les éléments de la communication. Moi, est-ce que am naa lu ma mën a téye loo xamee ni su ma communiquer nit ko dégg élément communication peut-être mën jàpp naa ni la amul moom le gouvernement amul un tax élément communication mooy comme li nga wax est-ce que mën nga ma 16 morts laa am alors que gaal bi 40 ou 50 personnes ñu ministre de l'Intérieur a annoncé 18 morts alors qu'il était sur, place. Sur il a beaucoup plus d'informations dans les services qui La police, la gendarmerie, mouille sapeur-pompier, pompiers, euh, commissaire bien ramené, moi, Yubar. où ministre de l'intérieur mais moi, les éléments de la communication font défaut souvent en tout cas ci situation unique, pas à part Malik seulement mais peut-être même au ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, et peut-être aussi au ministre porte-parole du gouvernement, parce que il y qu'un 18 morts, qui sont 16 morts. Deux morts, c'est quand même des morts, hein? deux, <laughs> ben, deux, ben, ben, mais deux morts de différence. Peut-être que finalement, ñu situation yi bi mu dalee am ba légui ba légui dégg guñ ci. le ministre de la jeunesse ngaan ci yàbb ci. te mbir yi démb de laa soo gis mu mu ne TFM ci mais mais en fait même bu da fay joxé ay éléments de communication. il faut dire et reconnaître que le ministère de la jeunesse ne travaille pas. jamono ji vacances moo doon am. wàññi wàññi wàññi di. il n'y a aucune option il n'y a aucune option